Euh, parce que c'est une question qui nous préoccupe ñun au niveau de la République des parce que on a des militants qui sont là-bas qui sont okay, victimes nga xam ne yàlla xam ne ñoom Ablaye Sam et cetera et cetera ñoom Libaas donc ma leen di nuyu au passage mais aussi di louer le courage de de mon euh, que je suis des fois souvent hein, et j'avoue que vous avez une tâche très extrêmement difficile très difficile de même jàppoon naa ne sax du ñëw tey aujourd'hui parce que souvent damay dem ay débats yoo xam ne bon en genre les membres ñu ñëw parce que la situation est grave donc euh, je vois que vous essayez du diable mais bon c'est vrai parce que la question de Ngor euh, franchement parler euh, il faut se dire une chose moi je trouve que je trouve que c'est monsieur Maïga Abdourahmane voilà donc je vous le dis par rapport ak Ngor moi je trouve que gouverner d'abord c'est prévoir et ce qui se passe loolu là-bas fekkonte na woon on avait pris des mesures depuis le départ je pense que du ñu toll ci situation bi. du ñu fi agsi xaar ba mu am mort d'homme vraiment loolu c'est c'est extrêmement grave te li xew Ngor mais mais c'est ce qui se passe un peu partout ñun au niveau de la République des avec le président Thierno Alassane Sall pas plus de quatre le six seulement il était à Fimela. Fimela où les populations ont été spoliées de plus de cinquante hectares yoo xam ne ko jël jox ko à des Indiens. cinq mille. c'est cinq hectares. cinq mille hectares. cinq mille ñu jox ko à des pour des projets de xaw ma xorom ak yu demee noonu projet boo xam ne d'après li ñuy wax 300 emplois lay joxe mais qu'est-ce que la crée comme dégâts collatéraux c'est plus de 800 xam ne ñu ngi nii toog te quand on prend une seule femme boo ne day nourrir au moins 10 personnes autour d'elle c'est plus de 8000 personnes qui sont impactées par cette attribution de 5000 hectares euh, des indiens bu ñu demee tey jii damay jël le cas dernièrement ici euh, au niveau de la baie de Hann et je profite de l'occasion pour saluer nos amis qui sont là-bas donc ñoom Mbacké Seck et cetera et cetera mais dernièrement on a été là avec le président Thierno la Sall li may wax ni mooy cas yi nga xam ne Thierno dafa déplacé wu dem fekk si parce que foo si bi mais li ci du fi jeex ah mooy de yana en cascade président de la République sax si boppam wax na ko donc vraiment au niveau de, de la baie de Anne, comment vous pouvez comprendre qu'on octroie 9200 mètres carrés à une seule personne sur le littoral en violation des textes tey jii boo fa demoon tey jii mais population yi xale yu ndaw ngay gis pour ñu dem jàngi dañuy obligé di def ay contournement ci booru géej bi à leur risque de vie dañuy motul bu ñu daanoon dañuy dee parce que y a un monsieur qu'on a at ak yonaatu bi 9200 mètres carrés en violation des ci prescrivent le domaine littoral donc tels les actes sont là du ma dugg je veux pas parce que là c'est pas normal te je pense loolu bon on a lan lañu war a def ci ci achat bu ma ko permettre waaw on termine là-bas pour dugg feneen a def par exemple gis nañu affaire Ngor yaa ngi wax aussi tamit affaire li xew Palmarin ak pour un peu réformer euh, le cycle euh, foncier au Sénégal à aéroport Léopold Sédar Senghor. non waxuma a teg non solution yi. Hmm. mooy c'est-à-dire. non ci question man dama jàpp na d'abord il faudra ñu criminaliser toute personne ou les gouvernants en commençant par les gouvernants qui se rendent de délits portant sur le foncier dañu war a corser donc sanctions yi d'abord. on l'a fait avec le viol. comme hmm. l'a fait avec d'autres et d'autres. première une pénalisation de ces gens parce que dafa bëri y en a à ensuite aussi hmm. il faut ñu def une démarche inclusive impliquer les populations parce que gis nga Sénégal ñun ñëpp ko moom suuf si ñun ñëpp ko moom du parce que yow man maa ngi Macky Sall rek donc man war naa mën a am ci si yow parce que tu n'es pas avec tu n'as pas droit au foncier c'est pas normal mais d'accord non moi je parle de manière générale je parle dans le général aujourd'hui ñu ak Macky Sall ñoom ils ont toutes les maanaam facilités bu dee suuf rek boo demee tey jii au niveau de domaines yaa ngi dégg ñoom ils sont ils ah, de façon générale donc ñëpp ko moom Sénégal yaa ngi dégg donc c'est une donc il faut une démarche inclusive donc loolu daal laa bëggoon wax yaa ngi dégg donc di masalu waa la di was masalu aussi les populations de qu'on euh, s'appelle ñi nga xam ne ñu ngi suivre qui sont au niveau donc de la baie de Hann nga xam ne d'ailleurs il y a une audience qui est prévue et pour votre information mur boobu Mhm. C'est parce qu'on n'a pas impliqué les populations. Donc des jeunes sont allés s'attaquer à ce mur que nous appelons le mur de Berlin, le mur de la honte au XXIe siècle. <laughs> daaneel mur bi c'est parce qu'on n'a pas dialogué. Alors, parce que on va on va bu ñu impliqué woon population yi. Uh-huh. je pense que amaana parce que dañu dañ fay. problème foncier bu ñu koy waxtaanee duñ fi jóge te temps bi dina jeex.